S'il vous plaît, vous avez des journalistes, on disperse tout le monde. tout le monde. D'accord, d'accord, On, disperse tout le monde. Tout le li nga xamante ne mooy instruction euh, li nga xamante ni préfet bu Dakar joxe na ko nee na képp ki nga xamante ni journaliste la nañ leen dégager oto bi daal di libre ñu mën a daal di dem. Mhm. Si vous pour qu'on va en guerre, on ne va pas On sentit que les nerfs de la peine nous attendent là-bas. Tout le monde. Voilà. dégg nga ci dégg dégg nga dégg nga dégg nga dabaax li nga xamante ni kii di Jibril protocole bi wax na ko nee na yaa dee nervi APR yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fee taxaw di leen xaar bëgguñu nag lu dul ñoom ñu def foofu ngir ka kat ñu mën leen a saa faagaagal ngir mën a am guerre seen diggante ba tax na ñoom tamit nee na ñoo lànk ñoo bañ mënuñoo jël fi nga xamante ni ñoom foofu a jaarale nee na nañ bàyyi ñoom ñu jël yoon bi nga xamante ni moom lañ bëgg a ma yaakaar ne rek fi mu toll nii loolu wartu mën a jël coow loolu wartu mën a nekk ndax gis nga jibi ba tey mu ngi wax nañ avancé tuuti ñu mën a xam li nga xamante ni moom lay wax fa jaar la ñuy jaar ba pare amuñu droit tànnal ñu itinéraire voilà fii la ñuy jaar ci route de Ouakam la ñuy jaar dem tribunal parce que dañ ñu convoqué depuis 9 heures mais ñoom ñoo ñu tere jàll voilà.